yëngatu ci wàllu déminage humanitaire waaye tamit accompagné dellu famille yi nga xam ne xeewu Casamance andil na leen ay jafe-jafe si yooyu lay jafe-jafe li si gën a fës mooy dossier état civil kii di gouverneur région bu Ziguinchor di xam le ni am na ay jéego yu am solo li ci nguur gi def. waa dossier état civil li ma ci mën a wax mooy am na ay jéego yu am solo yuñ ci jot a def ginnaaw bi ñu signé li ñuy tuddee accord de Mongone bi nga xamante ni dafa am volet loolu pour ñu mën ko jëmmal dafa laajoon ñu def ay enquête ay xayma ànd ko ak mairie yi ànd ko ak chef de village yi waaye ànd ko aussi ak ay yenn partenaires. ci wàllu woowu liñ ci mën a wax mooy actes yi commencé nañ ko délivrer te yaakaar naa ni su ma juumul war na toll ci. ñetti junni ak genn waal ci ay actes yoo xamante ni jot nañ ko délivrer. ngir yombal dellu famille déplacé yi agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance dina tëral benn kuréel ngir boole bépp initiative ngir yombal liggéey bi. donc dañu war a créer benn kuréel bi nga xamante ne moom moo war a fexe ba dajale. donc doole yooyu yëpp dajale euh, initiative yooyu pour que liggéey bi ñu mën ko xayma ci anam yu yu yu yu jaar yoon am na benn plan d'action boo xamante ne dañ ko amaloon muy plan d'action boo xamante ne dafa liñ ci nemmeeku mooy lépp li nga xamante ne mooy ay engagement ay intervention yi nga xamante ne partenaires yi état bëgg na ko def ci population yooyu donc dañ ko regroupé woon foofu donc muy plan d'action boo xam ne biñ ko xayma dem na ba tollu presque ci presque fukk ak euh, juróomi solo daje bu agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance amal ci Ziguinchor ànd ak seen i mooy xayma lu ñu jota liggéey daaw ak décliner seen i feuille de route bu année 2024 ngir ñu mën a wéyal seeni liggéey bu ñu jublu ci population déplacée yi.